abi internet yooyu safoo suivre si seen seen YouTube euh, bi di euh, Diaspora 221 ak euh, Click Dakar tey ñu ngi fii jàmm gën fii nga xam ne ni moom mooy koñu Laurent Ndiago ginnaaw nag ba mu daanee démb benn victoire am bu rëy si kaw Alliance Baldé dañuy ñëw fii nag jàkkaarloo ak mbër mu ngi nii ak mafia jàmm gën bi ñu ngi la nuyu. waaw ginnaaw mi sant yàlla julli si Mariam bu sell mi di sant samay ñaari waayur yee waaw yee mais démb li nga def lan la defati nga li nga defati lan la. lan laa defati. eh taisez-vous waay silence. ah li nga defati mooy alliance bu nga jàpp daan ko. maa ko war a daan daan ko. oui. ah defee niñ mel. ah bar sëñ Bamba. ñu ñëw déjà si préparation combat yi parce que Laurent bu ñu koy gis dañuy gis Laurent bi comédien la ñuy gis mais bu duggee si kii bi day def ful la. naaj noonu la demee naa Laurent du mbër bandi la. mbër nga parce que gis nañ da nga respecté entraînement. non non maa mos gis may entraînement. dugg nga saal tout nga ma di ma bi yëpp. non maa ngi sama gàlle toog di nooyal bàyyi leen ci rek. loo def ba daan waaj boo entraîné wu non bëre ak doon jàmbaar rek di ko mu may gagi. waaw. mais doon na la bëgg a daw génn saako loolu la la woon daf maa gagi dóoru ma daf maa waaw. waaw maa ko maa ko dóor mu fayu yi. léegi nag ñu gis na sa préparation combat macha allah démb ba ngeen di dem fii nii fuul bi waa jàmm gën ñëpp ñu ngi sa ginnaaw lan ngay wax si loolu. waaw sant yàlla rek ñun dara jom ñun ay jàmbaar reñ bar sëñ Bamba waaw di sant samay ñaankat nag bu baax a baax a baax Sonko di ko sant bu baax a baax. ak maam Say Touba. yee maam Saytu ak Samba Ndour Samba Ndour Babacar Roset ak Baye Sidi Mbacke ak Baye Sidi waaw Baye Sidi Touba. waaw ak Ahmed Diam Ñaajo comprendre ak Oustaz Oustaz Cissé comprendre Tafa waaw Père Kawsu di sant samay ñaankat yëpp ku lim da ngay jum ay Baara Géejuwaay Matar Casamance l'enfant Tamba billaahi ba as yëmbal waaw maanaam am na ñoo xam ne bëgguñu woon sax may tudd seen tur mais Baye Fall di la bëggee bu baax Baye Fall Baye Jéele xam na ma xam Baye Fall da si sonn quoi ak Maysa Meesa da siy sonn bu baax. waaw Meesa maa tax mu jóge waaw njaareem ñëw fii nii Meesa. Ah, waaw mel ni mbooloo ñooy ñooy ñooy jàppale Laurent parce que mbo Laurent mbëru askan wi la mbëru jàmm gën la xarit ñëpp la amul sens interdit. nice waaw man moom aw ma sens interdit moom. fenn billaahi waaw. waaw léegi démb balaa ñoo ñëw si euh, combat démb bi ñu gis ni sa open press kii nga xam ne moo nekkoon sa adversaire di alliance dina loon jaxa doon na loon bëgg a jaxase ki nga xam ne moom mooy Siteu hmm. di la wax ba nga naan dégg naa say wax nga naan Siteu bu nekkoon fii tey moom moo may yóbbu gisoon nañ tamit takk si ginnaaw lan ngay wax si loolu takke man sama mag la Siteu sama mag la yaa ngi dégg alliance ba loolu mu la wax man seetaanu wax sax yëguma ni sax wax na ko Eh, mais loolu noonu waxu mbër rek su sañoon da koy ba ma énervé pour mu daan ma mais waxu ngir dara waxu ko ngir xam wax ni jaxaseñ daa doo wax ngir bataay raase bataay raase lañuy wax waaw ay bataay raase pour sama xel dem moo lool nice mais du dara moom nee na waxaat na leneen nee na daf ma damaa di 15 loolu yëpp day bëgg pour ma énervé wu. ñëw waxoon na loolu ne woon na Gainsman du ko daan. voilà mais loolu yow yëpp moo eggul si xolam quoi làmb moo demee noonu man comprendre naa ko man su ma ko mënoon wax lu gën nga dama kaa merloo mu ñëw maam ma daan ko waaw. waaw làmb moo demee noonu quoi. nu mel ni bataille psychologique la woon moom su mu la doon woo yow foog nga nga ko naxee mooy daf la doon jéem a naxloo fekk yow nga nax ko daan mu topp xeex bi ba nga jàpp ko daan non dama ko xaw a xoon nag daf ma ne dañuy xeex ma ne ko waa ay naes comme nañ bagaar tuuti xaas bi ñu fay mun a barke ñu xeex raag ba naaw deret tuur ñu ne góor nga mais dalaa xosi dafa ma gaggi xosi wu ma daf maa gaggi waaw léegi lan ngay wax dèjà ba daanee sa première réaction bi nga xool mbooloo jàmm gën bi yëpp nekk sa ginnaaw. nekkul maa ngi soogay daan. Mm-hmm. mais xam nga sa combat Laurent dañuy gis Laurent comédien Laurent comédien duñ gis Laurent mun bëreem. duñ gis mu Laurent cër bu muy jox làmb day fonk entraînement day préparer combat comme lu mu waree mais gars yi ñuy gis mooy Laurent comédien nekk fii wax wax. Ah, man maay deme maay noonu man maay doxalee noonu. nice man noonu laay joobee quoi sëñ Fall. bilaay waaw mais moom di sant nag liggéey na si combat baax ndax bañ jàppante sentir naa doole barki allah gi fàllu liggéey na bu baax a baax a baax yee yàllaa ma suturaal rek may ma ndam munuma ko nag bar sëñ fàllu mbàkke ak ni nga ko daanee nga ne mënuloo ko na ma daanee noonu yàllaa ànd ak sant yàlla. bilaay doole sëñ Fallou ah. mais lu tax nga bàyyi xeex bi ndax ko jàppante moom jëm ko daan parce que moom toppoon na xeex mais tamit ñun duñ ay machine yoo xamante ne dañuy taxaw di xeex ba fa yar ñun ñëpp nañoo bëgg coofe kenn bëggul say bët di fatt wala say bax say yaxu bakkan di damb waaw yaa ngi bëgg lu nooy moo tax bëreewoo. damay bëre bër laawul. duñ dëkk si xeex de dañuy xeex tuuti bëre lu bëri. waaw bëre dóor nag la ñu balaa ñoo bëre moom foog ñu xeex ba pare moom man xaw ma man ku munta daje moom balaa ñoo bëre foog ñu xeex foog nga dem wuyu ji ardo wala man ma wuyu ji wala ñu àndandoo wuyu ji ba pare soog a daanante waaw. mais Laurent yaa ngi ñaata combat. xamoo samay combat non man maa la laaj pour ñu lay seetaan pas pour man. maa ngi 26 komba 26 victoire. kan ak kan nga daan. maa kan ak kan nga daan loolu ma koy limal. maa ba may daan plateau. moom amuloon combat quoi. ma jël ko daan ko sama premier combat. jël Bou Siteu mu am neuf combats. ma daan ko jël ay combats am yëpp ko samay combats mi diis. Alliance Baldé soo calculer kombaam am na ay 17 victoire xawma yooyu moo tax ma jël lépp boole ko 26 combats 26 victoire. la loolu leer na comme yow ñi nga daan ñi daan da ngay calculer seen victoire boole ko say victoire mu ñu ma daan ñëpp man su ma la daanee yow koo daan jàppal ne dootuma la jël ndax maa la mën maa daan ko la daan. c'est jeex na c'est Soares bëggee naa la sa yee. waaw mais lu nekkaat sa kanam après ba nga daane ki nga xam ne mooy Alliance Baldé. làmbañe sama kanam. waaw. kan moo kan moo nekkaat sa kanam pour nga bëree nga koy laaj ne kii laa soxla. sa caméraman bii moo nekk sama kanam. moom nga bëgg a bëreel. ah ngi sama kanam ma yaakaaroog moom. waaw Samba yow la bëgg a bëreel. Ah. Samba nee yow la bëgg a bëreel. bëgguma bëre moom da nga maa ne ku nekk sama kanam ma ne la moo ngi sa maan bi. waaw ah, moo nekk sama kanam. waaw léegi léegi dama bëgg a xam. Hmm. kan nga bëgg a bëreel comme. voilà avec plaisir. Balla Gaye ak kii. Boy ku daanu bëgguma ku daan ñëw. ku daan ngay laaj yow. ku daanu rek bëgguma foo xam demal. yaa ngi mais yaa ngi tëpp de. yaa ngi tëpp étape. saa yi 26 combats du ay foo de. léegi. démb gis nga ñàkk bëri ak ki nga xam ne ñooy Jackson. waaw. est-ce que soxla woo Jackson wala nga soxla beneen mbër mais ay Balla Gaye ay Boy Niang est si yow. saay bul ma dugal si détail yooyu du ma tëkku ay kiire du ma tëkku mbër yoo xamante ne man maa leen xaw a raw niveau quoi mbar sëñ Bamba ñun mbër yu mag yi nañ bëri seen biir ñoom booy ndaw yi bëri seen biir. <laughs> yow yow yow ban ban ban raa nga bokk si mbër yu mag yi nga bokk. VIP laa bokk. parce que am nga 26 combats 26. waaw ah, même bu dul loolu sax ñoom xam nañ ma xam. waaw ay Balla Gaye ñoom xam nañ ay Modou Lo ma xam ay Eumeu Sène waaw ak ñoom. naas waaw déggoo moo tax ma ne ñun mbër yu mag yi xamante nañ suñu biir waaw ñoom mbër yu ndaw yi ñoom xamante nañ seen biir mais ñun mbër yu mag yi xamante nañ suñu biir waaw. waaw mu mel ni tamit Laurent dañuy gis Laurent. surtout Laurent Ndiago Laurent Ndiago Orbi Laurent doomu jàmm gën Laurent taalibe Sëñ Fallou Laurent fépp boo gis moom mu ngi def social mu ngi si jàmm social jàmm gën fépp fépp si relation boobu noonu lan la sant yàlla rek barki allah gi Fallou ay jàmbaar yi ñun suñu amee jàmbaar yëpp am billaahi lees waxul daal waaw tamit ku si daan waaw. naaj ku si daan daan baax na daanu baax ma jël la waaw. boo am Balla Gaye tamit. ku si daanu bëggu waaw. dimanche maa ngi damay samp pare war nga pour bëri si saison bii nii 2023 waaye yow quatre combats. <laughs> maanaam ma pare war nga may liggéey. kër gi di baraak. mu war a changé wu nga may naan ndax pare nga kin di tàq. sa léegi léegi ñëw aussi si sa relation ak booy Diamaguène yi gis na mbooloo bi topp la naan Laurent Laurent est-ce que yaa ngi xalaat li nekk sa kanam si côté sa adversaire potentiel boo xam ne moom nga war a jëli ji sa prochain combat. nice man daal maa ngi fekk làmb booy samay moomin lañ. waaw ñi ñëpp samay lonkoo lañ comprendre nga. waaw waaw man toujours lu neex sama ginnaaw ma koy fàtte lu sama kanam rek moo ma ñor. léegi ñu ñëw nga décortiquer ñu combat bi démb noo ko daanee ba arbitre ne prip. waaw arbitre daa ma ak sama gar mu naaw ñëw sama kaw waaw ma xam ne tey basu jëflante la ñu dóorante ba kaani xeeñ neex bar sëñ Bamba. waaw après. ndeysaan yàlla ma suturaal daal dama xaar ruus anaas waa man dama xaar ruus bilaay yàlla ma suturaal mais waaw jàpp ko daal ma kaa xool sax gis nga. ruus nga jàpp ko daal. bilaay ma ruus mënu ma kaa xool sax. grand bi grand bi kontaan naa si de Alliance Baldé bar sëñ Bamba loo koy ñaanal pour prochain combat su amee combat yee fu dul gën yaa ngi wala sama gaan yàlla na ko yàlla suturaal may ko waaw. ñu bàyyi la nga dernier mot nga sant. waaw di sant sama waa écurie nag suñu président Ndik Fall Ndik Fall di sant bu baax a baax suñu président écurie Ndik Fall ak Père Laay Ngom Père Laay Père Laay di sant bu baax waaw ak Assane Assane moo may toogal sees Père Assane di ko sant Jibi Njaay Jibi Njaay di ka sant bu baax a baax paki kot su Moussa Moussa yow moom jàmbaar nga Abdou Diouf ngaa ke ngaa laama Père Babu jàmbaar ngeen bar sëñ Bamba mais waa di sant mbëri nag ñoom mbës mbës di ko sant bu baax ñoom bébé daaru ñoom Mati Mati di ko sant ñoom Léopold ñoom Zarko béton waaw ay caatu jolof eh, waa waa écurie bi yëpp waaw jum ko waa jaama gën si ka mbaaw bi di sant ñëpp ñëpp billaay walaay taal mais écurie bi ku da ngay jum waaw di sant saal bu may entraîné ñoom seex seex di ka sant bu baax a baax ak tooma ba Moussa di sant Mansour borom tax bi waaw di ko sant bu baax waaw di sant Bàcci Massamba aloo Dakar waa borom dëkk bi bar Bamba di bëgg jàmbaar yi nag waaw ma fi kër Mbay Fall bi di bëgg Lica billaay waaw di bëgg jàmbaar yëpp ku lim da ngay jum waa Touba ginnaaw raay waaw Grand Yoff sita ñoom sita bu baaxa baax ñoom tons jàmbaar foofu noonu xam nga waa di sant waa mbedd Fass nag ma fi ak yow sa xiir bi. waa Tëli Maam Jaara. di sant jàmbaar yi di sant waa Mbës Mbës waa di sant waa ñaari tali bu baax a baax Ahmed Gallo Ahmed galo di ko sant ay góor a saaliw day sonn si man jàmbaar la bar sëñ Bamba góor a saaliw xam di sant jàmbaar yi ku lim da jum ko waa di sant waa Jembare. guy ga Casamance waa Touba sëñ Abdou Karim waaw waa tuuba di sant bu baax bar sëñ Bamba eh, di sant àdduna di géegalu ñëpp waa take di sant take bu baax sama grand kooku sama lépp la bar sëñ Bamba waaw di sant a Guinée bi waaw mais take moo billaahi di sant Baye Abdou ah Baye Abdou waaw gis nga naes